li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna li sadinatan bi jërëjëf moom li ñuy wax rek mooy ñaari école yi boole na leen def leen ñuy benn école muy école bi nga xam ne biñ ko yebalee mu jàngi téere yëpp gànnaar ak réewi naar yeeg yëpp a jeexal ko bi mu ñëwee sëñ Basir da ne kaay ma dalal la beneen école école boobu nag ba mu ca génnee tableau bi njëkk takk tàkk ci kanamam mooy yaqin ci lépp aqida du yàlla du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du alquranul karim yoonu yàlla yëpp dañ ko ubbil mu di ko gis lii ñëwagul lii li ci ginnaaw miir yeeg lépp da koy xam koo koy sëñ Muntaxa moom loolu loolu fa la jëmee fa la jëmee yoonu murid yëpp nag bu ko bul na table lii ma wax nag ngi ñaan naa la ko ngir yàlla bu noppee fa la ñëpp jëm fa la ñëpp dem te jaaxal kenn te lépp dina ñëw ndax ne ñu ngi sant bu baax. ñu gis ne exposition bi gis nañu yéeme. waaw am na solo euh, euh, moo day wone ne euh, jeex jeex ci sëñ Tuubaa tàkk teewul a xam li jamono fi jamono toll du xarala yi du xam-xam yi du du du du du du du science yi du technologie du dara loolu yëpp ay jumtuwaay la comme Atou Diagne dañu liggéeyal yàlla yëg liggéeyal sëñ Tuubaa loolu rek la moo tax moo tax ñu dañ ci tibb lu bari te dana gën a yaatu incha allah dana gën a yaatu dana gën a xereñ incha allah tamitam jërëjëf.